ci suñu njëlbeen wax ñi ngi leen di masawu di jaale ak di yóbbante njaalu président de la république ci ñépp ñi nga xamante ni seen mbokk seen xarit seen dëkkandoo bàyyeeku na fi ci li nga xamante ni mooy mbas mi fi tàbbi diggante daaw ak ren ñi nga xamante ni dañoo tawat nekk ci lalu hôpital yi ak nekk ci kër yi ñi ngi leen di massawu di ñaan suñu borom mu fëgg seen bopp ba delloo leen ci seeni yitte ñu nekk ci seen wetu ñooñ waaye duñu mën a xuus ci suñu kàddu te santuñu gërëm ñi nga xamante ni ñooy waa kër docteur ndaxte seen liggéey ci wàllu tawat gi ak seen taxawaay gis nañ ko te rafetlu nañ ko ñi nga xamante ni ñooy takk der yi tamit saa su ne ñi ngi taxawu askan wi waaye di sàmm kaaraange gi ba lépp loo xamante ni moo aju ci wàllu liggéey bi ñi ngi koy def nu mucc ayib di ko def ni mu waree waa administration territoriale bi nga xam ni mooy gouverneur yi préfet yi ak sous-préfet yi ñoom it saa ne ak wàllu woo xamante ni xeex feebar bi yitteel na ko am nañ ci taxawaay bu mat sëkk daañu nag beral jaajëf ak jaaraama ñi nga xamante ni ñooy taskatu xibaar yi ndax bi mbir mi tàmbalee ak léegi amul benn bis boo xamante ni seen taxawaay ak seen yitte nekkul ci di woo nit ñi kir ñu bàyyi xel ci ndigal ak xel yi nga xamante ni mi ngi jugee ci kër docteur am na nag loo xamante ni mënuñu koo ñàkk bañ a wax mooy di jaajëfal ak di masaw bu baax a baax a baax askan wi ndax xam nañ ni mbir mi metti na te yàgg na te nekkoon na loo xamante ni du luñ doon xaar ba tax na gis nañ ñu ëpp ci ñoom ni ñu taxawee tem jëmale ko ci wàllu mesure barrière yi jëmale ko ci wàllu takk masque yi jëmale ko ci wàllu dàndante bi ba tax na tey Euh, mënuñu lu dul def lu dul rafetlu noonu nga xamante ni noonu la ñu taxawee xam nañ ni xeex bi metti na te du xeex bu yomb te xeex bi bi mu tàmbaleeg léegi yàgg na waaye nag yaakaar juddu na ndax li ko waral mooy le président de la république son excellence Macky Sall ku ne gis na àllarba bi ñu weesu muy tertu première dose vaccin yi nga xamante ni mooy ñàkk yi nga xamante ni ci la ñu nar a sukkandiku ngir bu soobee yàlla tàmbalee gën a baral waaye gën a am euh, njort bu rafet ci xeex bii nga xamante ni ñi ngi ko jëmalee ci wàllu mbas mi ngir mu jeex fii ba faw mbokk yi euh, diggante weer wii ñu génn ak tey président de la république ngir aar askan wi am na loo xamante ni mooy protection sanitaire état de catastrophe sanitaire bi nga xamante ni aar askan wi moo ko taxoon a jóg la décidé woon bi mu ko décidé ñu doxal weer wi gis ni naam am na loo xamante ni buñ ko defuloon xañ na tey mbir mi dina gën a jéggi dayo wala mu gën a jéeme yéeme waaye ci tey gis nañ ni kaa yi ba tey mi ngi bari gis nañ ni ba tey euh, génn àdduna yi mi ngi am gis nañ ni ba tey ñi tëdd ci lali hôpital yi ñi ngi wéy euh, di gis ni lim bi takku na loolu waral na bi ñu xaymaa loolu ak waa kër docteur président de la république gis li nga xamante ni moo am ci région Dakar ak Thiès mu jël dogal dogal boobu nag mi ngi jëm ci fii ak ñaar fukki fan weeru mars li nga xamante ni ñu ngi ko doon def booba ak léegi ci wàllu dem bi ak dikk bi euh, niñ ko arrêté woon ci wàllu dandante bi ci wàllu dajaloo bi ci wàllu xew yi loolu yëpp mu ni dinañ ko laat fii ba 20 mars 2021 te buñ ko limee léegi te ma waxoon ko léegi ci tubaab Euh, diggante juróom-ñeenti waxtu ci guddi ba juróomi waxtu ci fajar lépp loo xamante ni day dem doon dem ak dikk dañ koy dogal dakkal ko ci wàllu dakaar ak Thiès mu ñu koy wax ci tubaab couvre-feu li nga xamante ni tamit mooy dajaloo bi moo xam dajaloo xew famille la moo xam dajaloo xew ñu jëm ci wàllu yeneen euh, activité la loolu it nekk na loo xamante ni Euh, dañ koy wéyal di dakkal lépp loo xamante ni tamit euh, ay nit bërëb la yuñ fa daan dajaloo jëm ci wàllu hôtel jëm ci wàllu restaurant jëm ci wàllu baar te weer wii ñu génn ñu dogaloon ko dañ koy wéy dañ koy dal di wéyal bu ñu jógee ci poñ boobu nga xamante ni moo itteel wàllu tere yi jëmale ci couvre-feu ak ci dajaloo bi dañuy fàttali lii nga xamante ni nag war nañ cee bàyyi xel te mu jëm ci Sénégal gépp yamul ci dakaar ak Thiès lii ma njëkk lim ci dakaar ak Thiès la waaye li ci topp Sénégal gépp ñoo ko bokk muy port du mask ñu koy wax takk masque yi docteur Ndiaye leeral na ko léegi takk masque bi du aaju rek nga jël masque bi teg ko euh, ci sa kanam doo ko takk bu baax wala nga teg ko ci foo xamante ni sawet boo gisee alkaati buy ñëw wala nga gis koo xamante ni takk der la nga dal di koy jël solaat mais nañ koy takk correctement loolu askan wi yëpp lañu wax ni dogal bi dafay wëy ci Sénégal gépp ci quatorze régions yi amul xaj ak seen te nag am na luñ ci leeraloon ci communiqué bi ñu njëkkoon a def ci weer wala weesu waaye dinañ ko gën a leeralaat tey takk masque bi du aju ni boo nekkee ci mbedd mi di dox rek mu waroo ko takk takk masque bi tamit jëm na ci boo nekkee ci biir bërëbu liggéeyukaay yi moo xam bërëbu liggéeyukaay la boo xamante ni ci administration bi la bokk waaye bërëbu liggéeyukaay yi nga xamante ni tamit nit ñi dañ fay faral di dajaloo mu nekk secteur privé ñi nga xamante ni ñoo yilif seen këru liggéeyukaay te ajuwul ci kaw nguur gi waaye tamit ci biir marché yi ak ci biir euh, kaar yi ndax seetlu nañ ni bu ñu duggee ci transport en public yi ñenn ñi mën nañ koo takk ñenn ñi mën nañ koo bañ a takkee ni mu waree loolu it ñu ngi leen ci soññ di leen ko fàttali te di leen xamal ni tamit lu yoon daan la bu fekkente ni defee wuñ ko ne mu waree bu ngeen nekkee tamit ci oto yi boo leen xesee doon ñaar rek donte seen oto bopp la dafay doon obligation ngeen takk masque yi loolu waral na ñu ngi ñaan di ñaax ak di sant ñépp lii nga xamante ni mooy ay dogal yu bàyyeekoo ci décret président de la république son excellence Macky Sall te ngir jëmmal ko am ay arrêté ministre de l'intérieur yu ci topp jëm ci wàllu couvre-feu juróom-ñeenti waxtu ba juróomi waxtu jëm ci wàllu dajaloo bi jëm ci wàllu takk masque bi ci Sénégal gépp ku ne sàmmonteeg moom ba lii nga xamante ni mooy mébét bi suñu borom euh, sottal ko muy mbas mi jóge fi ku ne dellu ci sa sago loolu moo doon xibaar bi nga xamante ni indiloon nañ leen ko fii di leen sant di leen gërëm ci teewlu bi wasalaam. Voilà, merci. Euh...